ginnaaw ba leen nuyoo ziar leen baax yéen ñu suivre 4appuis comme ni ñu koy defee ngi si yàlla daf ko may trop ci wàllum ñaan ñu koy wax Serigne ni jëflante nga moom si mbir yi ko yàlla may li mu la léegi-léegi nga koy gis ba loolu laaj ñu koy daakantele léegi-léegi ñu fas yéene waxtaan ci point yu bari euh, lu ci mel ne làmb jëm dimanche war a war a dox ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier dina ci wax lu nga xamante ni gis na ko ci mu nekk lu doy waar lu nga xamante ni dina ko ci wax wax ci wàllum xalwa ak wàllum sunguf bi nga xamante ni yàlla may na ko ci bu baax a baax a baax dañ koy nuyu bàyyi ko mu ndoog mbokk yi ñu dugg ci waxtaan bi sëñ maa wa rahmatullah li nga xam ne mooy làmb ji damu jub si yàlla moom may nañu xam-xam lool waaye nag xam nga bombar Bombardier ak Balla Gaye bi dama duggoon si sama roq ñaan yàlla def bam Bombardier am ndam bi yàlla defee am ndam si kaw Balla Gaye léegi nag ñu bëri naan siñ Karim boobu ba léegi li tax génnaatut waaw li tax eh, boobu ba léegi génn ma mm-hmm. ñaari may doog di génn ndax tontu nit ñi mm-hmm. ñaari mbër yi nga xam ne dañuy bëree dañoo nekk samay xarit mm-hmm. waaw ñoom ñaar ñëpp samay xarit mënu maa wax ne kii mooy daan kii mooy daan ñu ma si loolu lépp moom bëgguma ko moo tax it waxu ñëw ci combat bi war a am dimanche Eumeu Sène Bombardier sànq rek ne da nga ñaanaloon ki nga xam ne mooy mooy Bombardier ci combat am ak Balla lu war a loolu nga ñaanal Bombardier moo ko sàkkoon ci yow yaa moon yëg-yëg bi pour ñaanal ko waaw maa amoon yëg-yëg bi euh, ngir ñaanal ko waaw saw kuwu si man de man maa jekk-jekk ñaanal ko li tax ma ñaanal ko man maa nekk mbuur waaw mbuur bëgg ma am si man coxeel moo tax ma ñaanal Bombardier yàlla def ma am ndam. Mm-hmm. Mm-hmm. dimanche jëm ci làmb ju mag. Mm-hmm. war a war a dox ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier. làmb jooju nga ciy wax est-ce que am nga loo ci gis. waaw làmb jooju moom liñ si wax mooy làmb ji daal dana metti moom loolu daal lañ si mën a wax waaw dana metti incha allahu rabbi. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu metti lay mm-hmm. làmb ju gaaw lay ji moom dana diire. làmb ji nekku làmb joo xam day gaaw. waaw dana jël temps. est mën waaw làmb ji waaw jël mën na si am. yàlla mën naa def jël am si. waaye nag du nekk kii mooy daanu kii mooy daaneel kii mooy daanu. loolu moom duñ ko wax ndax euh, bëgguñu koo wax tamit ñu ñu si mere ndax euh, Sénégal moom ñëpp ko ñëpp ñoo bokk nekk waaw dañ ñëpp samay xarit lañ mm-hmm. Mm-hmm. dañuy gis combat am dina am dina am victoire mais jëli bi du bu leer mën na nekk par avertissement wala wala kenn benn kenn ki jàpp moroomam daan ko jëli bu leer waaw mën naa ne jëli bi moom bu demee bay am jëli bu leer naññ lay doon waaw doon ci waaw combat bi moom jëli dana si am mm-hmm. incha allah incha allah te du gaaw waaw incha allah dana diire combat bi dana diire incha allah. Mm-hmm. li nga xamante ni mooy wàllum sunguf parce que dégg nañu ne yàlla may na trop ci wàllum sunguf si nga xamante ni yaa ngi koy yor. waaw mbirum sunguf moom si borom dama see may bu baax a baax mbirum sunguf képp koo xam jox naa la ko am bayre da am xaalis waaw si kàttanu borom bi subhaanahu wa taala mm-hmm. loolu nag am bayre ak xaalis da loolu daa nekk loo xam ne dañ koy assuril nit ñi koy garanti waaw dañ koy garanti mhm. dañ koy garanti ndax garanti bi boo ko déggee sunguf si moom man dama koy garanti sunguf si li tax ma koy ma koy garanti képp ku ma ko defal gisoo sañ nga sañ nga maa yóbbu si yoon yoon sañ nga maa yóbbu si yoon ndax maa toog garanti ko moom xaalis ak bayre si lay dox mhm. sunguf si waaw ci ko ku ko jëfandikoo da gis li nga ko li ko ci wax ku ko jëfandikoo saa boo xëyee di ko laal moom balaa mat ñetti semaine da nga tàmbalee gis njariñ li balaa man ñetti semaine bu soobee yàlla da nga tàmbalee gis njariñ li incha allah rabbi. Mm. Mm. dafa nekk extérieur soxla soxla sunguf si est-ce que kooku mën nga jëflante ak moom. waaw mën nañoo jëflante moom ñoom ñëpp mën nañoo jëflante ñoom boobaa moom dañuy fexe ba yónnee leen ko rek incha allah rabbi ndax ñu ngi siy jëflante ñu bare baree bari bitim réew di leen ñaanal bu baax a baax ndax ñoom ñëpp seen aajo faju na ñu jot a ñëpp de kóllëre gi tamit jàpp nañ ko bu baax a baax ñu leen siy sant bu baax a baax. Mm. nekk jafe-jafe ñu jafe ci ñun ñu bari. Mm. moo xam ki nga xam dafa nekk extérieur soxla papier pour ñibbi si fii wala ki nekk fii bëgg papier pour dem tukki est-ce que ñooñu ci am nga si am nga si waaw loolu li ñu siy liggéey mbirum kayit liggéeyal naa si ñu baree baree bari ba yàlla def ñu jot seeni kayit waaw moo xam kayit yi nga xam ne dafa yàgg ak kay kayit yi nga xam ne dañ koy doog a déposé yooyu moom lu ñu la si liggéeyal rek incha allah rabbi da jot si say kayit daa defal nañ ko ñu baree baree bari loolu moom sant yàlla rek ba jot nañ seeni kayit mm-hmm. ko nga ko may pour mu gis résultat bi waaw kayit yi moom weer rek weer lay diire kayit yi daal di génn incha allahu rabbi si kàttanu borom bi subhaanahu wa taala. Mhm. Mhm. wàllum kàttan ñu bari fi mu mhm. waaw te yàlla may waaw mbirum kàttan moom diñ koy diñ koy seet ndax am na ñoo xam rab da lañ koy def am na ñoo xam ne si leneen ak leneen mën na leen koo def waaye buñ ko seetee incha allahu rabbi ba xam li ko waral bu soobu yàlla moom am na garab goo xam buñ la ko joxee incha allah rabbi dana tàqali ko yow si lu gaaw a gaaw incha allah rabbi si kàttanu borom bi subhaanahu wa taala di boo ko saafara ba mu wér day day fa wér jaaree fa wér wala day day laaj mu ñëw muy di topp ay rendez-vous déedéet bu ma ko joxee garab gi kay dootu ñëwaat moom moom fa lay yem boobaa day day wér incha allah rabbi si kàttanu borom bi mhm. incha allah rabbi mhm. wàllum ki nga xam ne dafa bëgg nga dugal ko xawlu set ay mbiram. Mhm. loolu nan lay demee. waaw xalwatu moom li tax ñu naan xalwatu xalwatu daa bokk si jaamu yàlla. xal yenente bi alayhi salaatu wa salaam moom biñ demee ba ci xare bi daal duggoon na xalwatu moo ta xalwatu lu am la xalwatu na ñi ngi koy defal mooy ki nga xam ne aajoom dem na fu ne ku ne ñaanal na ko aajoom fa juwut loolu nag xalwatu moo koy saafara mooy kooku xalwatu moo mën a saafara ay mbiram. waaw kooku nag bu ñëwee si man incha allah rabbi bu ma ko duggalee xalwatu boobaa moom jafe-jafe bu mu nekkoon dana dañ ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ndax li may wax rek ñaan moom jamono jamono ji ñu tool ni amu si moroom ci ñaan gi amu si moroom waaw yëpp donc day ànd ak day ànd ak garantie day ànd ak man ñaan amu si moroom mm-hmm. Mm-hmm. xalwatu ñaata fan nga dugg waaw xalwatu moom ñu ngi koy dugg juróom-ñaari fan lañuy dugg xalwatu waaw une semaine la ñuy dugg xalwatu bu ñu jëndee cooraay yi nga xam ne dañ koy jënd ngir mu jëm si xalwatu bi bañ jënd xalwatu bi ba def li ñuy def ba dugg xalwatu bi ba jënd cooraay yi ba def li ñuy def incha allah rabbi buñ génnee aajoom dana faju kuñ képp kuñ ko mën a defal rek aajoom dana faju dana faju incha allah. Mm-hmm. si lan ngay yënguwaat lu nga xamante tey fas yi waxtaanee wuñ ko ci yi ñu jot a yi li ñu jot wax léegi. waaw am loo xam ne ñaa ngi di yëngu te laaju ñu ko ci biir mm-hmm. waxtaan waaw mbirum boole ki nga xam ne dafa bëgg soxna wala mu bëgg euh, borom kër yooyu yëpp dañ koy def muy wàllum noob ki nga xam ne danga kaa bëgg takk mu mu bëgg laa wor kooku tamit mën nañ leen a boole ba yàlla def sey bi am yooyu tamit diñ si ñaan nii waaw ni ñuy jëflante nit ñi daal si lu baree baree bari si mbirum xam-xam da yàlla ñuy defal képp ku ñaanal mu gis mosuñoo ñaanal nit mu toog daa siñ karim de li ma ñaanal gisu gisuma ko loolu alaa kulli xaal du ma sa am ndax borom lim damaa defal xam man yoruma xam-xam yi xam-xamu mag ña yor waaw ndax damay doomi mag moo tax ma yor xam-xamu mag waaw. Mhm. macha allah kàddu yi am na solo yéen ko dégg kon mu nekkoon sëñ Abdou Karim borom léegi léegi. Mhm. waxee rek képp nga xamante ni doo ci am leen loo xamante ni lu lay léegi nga koy gis mu nekk yàlla may ci wàllum ñaan ku ko soxla mën nga ko woo ci numéro yi moo xam fépp foo mën nekk si àdduna moo xam Sénégal wala extérieur boo ko woowee incha allah di ngeen jëflante sëñ bi ñu bàyyi la nga wax kàddu bu bi. waaw li gën a fonk waxtu julli te gën a nekkal yàlla waaw bu nekkalee yàlla moom lépp loo ñaan rek suñ borom dana ko def si kàttanu borom bi subhaanahu wa taala sama mbokk sëriñ si dañ gën a góorgóorlu si jaamu yàlla te képp ki ñu jëflanteel ñu wax la dëgg te bañ lekk sa àq ndax àq dafa garaaw àq waaw àq dafa garaaw ndax day topp nit ba si bàmmeel moo tax koy jëflanteel rek wax ko wax ko lii ndax wërsëg moom yàlla ko yor ala kulli xaal li nga war lekk moom da ko lekk li nga am si wërsëg da nga am koy jëflanteel ñëwal kon saan yeneen ni nga yeneen sëriñ si di defee bu ñu amee client boo xam bu ñu koo ñaanal diñ koy indi diñ koy indi si man ma ñaanal ko waaw loolu ñooñu nag maa ngi leen di sant bu baax ndax loolu xel la doo mënul moom demal nga yóbbu ko sëñ Karim bu ko defee mu ñaanal mu ñaanal ko aajo mën a faju waaw da ñi koy def tamit maa ngi maa ngi leen di sant bu baax bari na sëriñ su baree bari bu ñu amee client xamuñ ñu ñu ngi koy ñaanalee mun ñoo faj aajoom di nga koy indi si man ma faj aajoom da loolu moom sant yàlla rek la loolu loolu tamit lu rafet la na maa ngi si sant bu baax a baax ndax loolu ku rëy mënu ko nit ki moom bu rëyee munu lool sama client bi aajo mënta faju waaw waaw loolu moom ku rëy moom mënu ko moo tax maa ngi di sant bu baax lool ak woyof la dama samay xarit lañ moo tax maa ngi leen sant bu baax a baax a baax mhm. ah, mhm. waaw laay da alxuraan da ne wama yatazakkaru ila ulul arbaabi mhm. waaw borom xel yi lay lay alxuraan di waxal ñi nga xam ne dañoo xelu dellu wax na afala yansuruna ilal libri kayfa xuliqat kon nit ki fu mu nekk rek daa war a ragal yàlla waaw nit ki fu mu nekk daa war a ragal yàlla ndax yàlla moo yor lépp kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan kenn ku ne suñ borom dana laaj ba nga jàpp ne yow kese la bindoon kon nañ gën a góorgóorlu si ragal yàlla waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu